ko telespectateur yi jërëjëf mbokk yi di Bakel 24 euh, ñoo ngi fi ci jam ñaajo euh, jëm fi nga xani modi buxu di euh, fa seene fekki mara bu mag bi mara bi kan la ñu ni serigne Aline mu serigne Babacar Sy mu serigne Paté Diouf nee la borom xam-xam borom kirama yi mom lañu ñu fa seene fekk tay fee muux boo ñëwee jam ñaajo da ngay jël kalando yi nga dem fekk serigne Aline nee la borom xam-xam borom kirama yi gaay ne suut ba ñu egg serigne Aline da ngeen gis ku yéeme da ngeen gis ku doy waar ci deggu ak xam-xam rek sëg mooy borom. comme ni ma leen ko waxee woon léegi egsi naa ci ki nga xam ni nee naa la moom boobaak léegi euh, askan wi ñu ngi doon laaj pour wax ak moom ñu ngi doon ñëw pour euh, indiwaat xam-xam bu sell bi nga xam ni euh, lu mu doon ci ay maamam doon ci ko ay kilifaam ñu ni sëriñ aliw mi nga xam ni mu sëriñ Babacar Sy mu sëriñ Pathé Diouf nee naa la kooku la ñu toogal tey fas yéene séq ak moom waxtaan nee naa la donga daara la sëriñu daara la waaye tamit borom xam la nee naa la yëngu ci wàllu wi nga xam ni moom ngeen ko fekkee tey lépp nag wakkirlu ko ci yàlla sunu borom tabaraka wa taala ak mag ñu baax ñi nga xam ni ñoom la ni liggéeyal ci tagg yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon du ma def rek lu dul bàyyi leen euh, ngeen ànd ak mbokk internet yi euh, sëriñ Aliou euh, ñu ngi lay siyaare bu baax tey ñu fekk la fii ci daara ji nga toog jàkkaarloog ñun ñu bàyyi la nga nuyu mbokk sénégalais yi aoudu bi zatillahi li zati min zati sheytaani rajim wa bi sifatillahi li وبأقوال الله لأقوال من أقوال الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للحق المتنزل عن الحق الذي أرسل رسول الحق بالحق للحق فكان حقا عن حق لحق فحقق الحق بحق قدره ومقدار عظيم مبكي أدنا روتنا مبكي سنغال ñu ngi leen نيو nuyu di leen ziyaara wax dëgg yàlla yéen nit yi nga xamante ni si tey ji du du jafe mm-hmm. waaye jamono dafa neexu la waxe mm-hmm. loolu rek moo taxoon ma permettre xale yi rek di ma téye ak seen téléphone mm-hmm. bu nu waxee la ñuy wax intéressé leen ñu dugal ko ci àdduna bi nit ñi di ci jariñu jubluwaay bi du dara mooy nit ki fa mu toog ña koy xam mën naa bañ a bari ndax nekk naa ci lii wuutu ci samay waajur lu ëpp ñaar fukki at te nekkuma Sénégal nekkoon gàmbi gine Mali yàlla dogalit ci ay ndimbalam ak nangoo am kilifa sunu kilifa ni ñu nañu ñibbisi ñu ñibbisi ñu jiital ko ci nuyoo bi muy Mawlaay Serigne Paate bu Serigne kër si fii ma nekkit moo ni ma naa fi toog parce que dem benn kilifa def ni ma yaa ngi am kër gu rëy dakaar am fa njaboot lu tax basé wu Joof ma ni ko déedéet basé loo wunu ma Ndakaaru mag ñi ñoo ni ma naa toog fii xaar fi yàlla kuy xaar yàlla nag doo bari looy génn mhm. ndax yàlla mën naa ñëw ci sa ginnaaw mhm. la taxoon ñu lay xaarloo yàlla bu boobaa dangay ngay dabu jiwaat ko mhm. loolu rek moo tax ñu toog fii ci buxu waxit yàllaa ngi def sutura nag tabaarakallah di leen nuyu di ñaan yàlla sàmm leen seen télé bi yàlla na yàlla naddil ko ba mu gën a fes ci li ñuy seetaan ci réew mi ak bitim réew tabarakallah di nuyu waa daara ji yëpp ñoom oustaz Mohamed ak oustaz Yousouk oustaz Mohamed Ndengleek tabarakallahu maam Khalifa ak ñoom ñëpp Serigne Babacar ak Pape Abdou Aziz mboolem ku nekk ci kër gi rek ak soxna yi tabarakallah euh, jërëjëf mbokk yi yéen a ko dégg euh, kooku Euh, dégg ngeen nuyoo bu sell bi nga xam ni moom la indi euh, jëmale ko ci euh, mbokki àdduna yi nga xam ñoo ñi seetaan moom nag yaakaar naa ni faral na di fës si li nga xam ni moo di bi waaye dégg ngeen ni mu ko sàkkoo li nga xam ni moo di xale yi rek ak ñi nga xam ne wala bëgg àdduna bi doxee noonu ndax ñàkk bañ wax ci àdduna bi fi mu toll ni kàddoom daan bokk na ci li nga xam ni moom mun cee ñàkk moo tax Bakel 24 ñëw fekk si ko ci kanam tuuti da ngeen am numéro téléphone yi su ko defee képp koo xam ni bëgg nga jokkoo ak moom ci li nga xam ni moom lay laaj laayee biir ak di ko waxtaan ak ñun waaye sëñ Aline euh, tey naka nga war a leeral Sénégalais yi sëñ Aliou naka la ñëwee toog ci daara ji njàng mi ak tagg yonent bi ak li nga xam ne moo di liggéeyu alxuraan ji mu euh, moom kenn ku ci nekk bëggoo toog <coughs> bu fekkente ni si nii yàlla dafa dogal ñu nekk di tagg yonent bi. suñuy bàyyi ñoo bëggoon ñu toog ci daara ji sama bàyyi yàlla na ko yàlla yërëm kilifa gu ma gu ma fekkanteel jamonoom mu fekkanteel jamonoom ak moom yóbbu na ma teg ma ci loxoom ngir mu wax ma rek ni ma toogal ci daara ji xaar yàlla ñoom maam Serigne Saliou ñoom Serigne Mansour abdou sama turandoo ñëpp rek mboolem koo xamante ni si nii xàmmee naa jëmmam sam papa yóbbu na ma ba ci moom mu ni ma toogal bi ñu toogee nag réccu wuñu ko moo tax ñu nekk fii ci daara ji daara ji internat la amul fay léegi da ngay gis ñu tegal leen seen bana yi ni duñ yalwaan añ duñ yalwaan reer yàllaa ngi def sutura Mohamed mi mooy moo may wuutu ci daara ji moo leen di jàngal lu ñu xamit moo leen koy xamal waaye yàlla daal mu ngi def sutura tagg yonent bi it xamuñu dañoo judd fekk suñuy maam ak suñuy baay di ko def ndono yim ñi fi bàyyil ñu ngi góor góorlu nag ba lu ñu fi bàyyi woon fukk fexe nañ ba mat téeméer mhm. ndax am nañ lu suñuy maam amul am nañ lu suñuy baay amul mhm. loolu moom yàllaa ngi def sutura bii léegi lañ yegg si jóge dëkk bu ñuy wax Nganda ca ginnaaw Kaffrine ca mhm. it ñu ngi waaj dem léegi léegi nii euh, Njaañ la gan ak Kër Mabba Jaxu Ba Ndungu Kebe ak Banjul fu ñuy wax Welingara ak Latrikunda Jaaman yooyu yëpp ay xeeti programme yu ñuy am la ca programme yu rëy ñu ngi ñu ngi dëgmal ci suñu ginnaaw mhm. le cinq mais le 6 mais le 7 ca Ziguinchor mhm. loolu yàlla suñ borom subhaanahu wa taala mooy mooy moo moo tërale noonu mhm. waaw euh, sëriñ sëriñ Aliou euh, mu sëñ Babacar si mu sëñ Paate euh, wàllu lasraar bi nga xam ni moom lay moom lay yëngu di ko dund loolu lu mu doon ci ay waajuram la wala lu mu jàngi woon la ba ñëw waaw jàngi nañu mm-hmm. bi jàng bi jàng jotee jàngi nañu mm-hmm. bi gëstu ji jotee gëstu ji nañu bi bi ndono jotee ndone ñëw na mm-hmm. biñ nekkee ci daara ji jàng nañu ba wattu lañu waroon a jàng yëpp bi gëstu jotee dem gëstu ji bi tarbiyu jotee ñu ngi tarbiyu ba léegi ndax sunu kilifa mu ngi dund waaye lépp loo xamante ne si nii yitte yitte da koy maye man Seydina Alioune rus naa ko ñaan yàlla mm-hmm. lépp lu yitte di maye rus naa ko ñaan yàlla te sama kilifa dimbali na ma sama baay dimbali na ma sama sëriñ dimbali na ma mm-hmm. lasaraar moom <laughs> wax dëgg ah, yàlla mbind mi sénégalais yi ñoo doyloo ñoo ñoo ñoo amul kóoluteef rek mm-hmm. waaye man ku aajoom namu ta faju ñaan naa yàlla yàlla bu mu dégganteeg man buñ dégganteet yàlla buñ jëflante mm-hmm. fii it ku aajoom na mu tafaju ñaan naa yàlla yàlla bu mu fi ñëw loolu maa ngi koy yalwaan yàlla mm-hmm. loolu rek laay ñaan yàlla mm-hmm. waaye lii nee naa la man sama maam bi jur sama yaay musuñu dégg mu wax benn baat bu dul alquran kenn musu ko gis fu muy jataaye bu musaana bind fatiha bu werante amee maa ngi dégg benn histoire bu gaa yi nettali ma ree defal na ko benn kilifa jamonoy Abdou juuf bind fatiha jox ko mu jox xaaj bari mu dem ba ci yoon yi xool ni ko fatiha kii de góor gi de fatiha rek la ma wàññeeku dem yóbbul ko ko mu bind fatiha bu dàq bi góor gi bindoon mu lem fatiha yi teg sotti ci pétrole boobu mu ngi ci tool yi di bay ndax lu mu mës a dunde daf ko daan bay mu kos almet taal benn fatiha bi tàkk ba jeex bi muy jël beneen bi rek góor gi këf beneen bi tàllal ba xam ni bii basu góor gi la góor gi seex ko moo ñu jàngalit ci xeetu mboolem lu ñuy nekkee ci àll di ci suturloo moo xam ay lugg moo xam ay jat am na ci suma maam boo xam ne yàlla na yàlla guddal fanam mu ngi dund jàngul waaye li mu mokkal ña jàngam ñu ci bari mokkaluñu ko ndax maam waaw ndax defaru dafa am mhm. jubóog suñu borom dafa am te ñaari yëpp ñoo gën jàng jàng defaru moo ko gën mhm. defaru jubóog sa borom moo ko gën mhm. te loolu lépp tarbiyu moo la koy may mhm. waaye bit lu ci ci xew bu dee laaj ñaq ndax man sama papa mayu ma dara lépp lu ma mus a jox laaj na ma ci loo xamante ni si ni samay baqata fekke fekkewu da daan nekk Gàmbi war ma jox loo xamante ni si nii tey jii bu ma ko xale yi laajoon mën naa ko mën naa leen koo jox teg ci may leen xaalis waaye daf ma ciy laaj loo xamante ni si nii dafay bari lool waaye teewul dama koy def waaw dafay bari lool loolu nag yàlla moo koy ci xeetu xam-xam ci xeetu xam-xam moo xam dof moo xam ku wéradi bu dee koo xamante ni si dafa amee jabet bu dee koo xamante ni si nii dafa ame yuxeel bu dee ku tele bu dee ku taxaw bu maanaam mboolem lenn rek laa xam ne moom tële naa ko mooy yàlla ak tasug mbokk loolu moom tële naa ko duma ko def. mais leneen lu nit waaw leneen lu nit wax loolu du kaa ceew du ci man. maanaam ku wéré ku yor ay rab wala. koo xam man même ku am xelam dem. suñ ko indee fii nga sax naa takk ay nit indi ko wanag wi ku fi dugg boo génnee doy da ngay cocc ngay def <laughs> loolu moom may bu dee wàllu xale yi. nii da ngay da ngay dugg léegi léegi léegi mu dañ léegi léegi léegi. loolu jërul détail sax àllooy xànjara jaa ngi nii. dañ koy bind léegi defal la ci nga sangu léegi buñ la takkee xala nga wér léegi boo génnee dem ànd ak sa soxna loolu yàlla daf koy def mhm. waaw benn bis maa ngi dégg benn waaye mu ne alxuraan dafa yeex ma ne ko xanaa sa alxuraan <laughs> am gisuma lu gën a gaaw alxuraan alxuraan gisuma ko mhm. bu dee ci zulmaani yu fe xeetu xam-xam yëpp bu ci nekk peeg naa ko teg mhm. boo xoolee mus naa jël àlluwa bi teg ko nii teg ci baraada nii di ci ataay muy baax muy baax ñëpp di taxalite boo xoolee internet bi di ko am na tappale hmm. waaw dama ko doon jàngal xale yi loolu am na tappale hmm. waaw jël jël keesu suukar gi jàngal naa ko ñu bari <laughs> ñu jox ma ci xaalis bu bari yàlla na ma yàlla jéggal hmm. ndax moom yoonu sawara dafay leer ci yenn yi bu fekkee danga won nit ki ngir ñu bañ ko nax kooku dem ngir di ca naxe loolu dafay am loolu xam-xamu xam-xamu. am na tappale mhm. mag ñi nee naa la luy neen rek am nañ dëggam loolu nag lu ñuy wax. maanaam koy jàngalee ngir ñu bañ ñu leen ci naan. voilà bu dee ci daara ji dañ lay wan ni la bii zaay zaayir la du baatin waaye nag am na baatin mhm. baatin bi nag li koy maye déedéet du toog nii la tarbiyu moo koy maye ak ngërëm mhm. waaw. léegi ki nga jox zaayir rek mu dem rek moom dem. déedéet pour ñu bañ ko nax xam nga tey jii mën naa leen a wan nii zaahir ñoom pour ñoom ñu bañ leen cee ndax ndax xale buy jàng mhm. di wut xam-xam mhm. bu gisee lu fees bëtam day bàyyi sëriñam fii ku fi ñàkk sa taalibe da nga kaa wonul lu tax mu toog ku fi am say rakk wala say mag mhm. wonoo leen lu leen koromp ban dem dem wuti ji xam-xam ndax man xale yi leen rek laa leen di gëmloo mooy ku ci jàngi leneen boo ñëwee da ngay toogaat ci daara ji ndax loolu seen bàyyee ko ñaan man fu ne dem naa fa lu ne def naa ko waaye fan laa mujj fii laa toog ci daara ñëw ma kenn léegi lañ ko tabax nii rek mais man dama daan préféré wu nekk ci sàkket yi rek bi ma amee ndigalu nañ tabax daara ji nag def fa jàkka maa ngi koy def xaaruma ci ndimbalu kenn ñi ci def seen dërëm matuñu cinq personnes te kenn defagu ci lu jige lu ëpp cinquante mille te ñu ngay kuule ñu ngay waaj kuule te dama ni kenn du ma ci ëppale loolu moom benn góor nee na waroon wax loolu en tout cas sëñ laa toogal euh, mu sëñ Babacar si mu sëñ Paate euh, moom nee naa la ne kenn la koo xam ni euh, li muy wax ci dënnam la koy jëlee te li muy wax ci xam-xam la ko teg wax dëgg yàlla dégg ngeen ko doon ko ci ay kilifaam kon sëñ Aline tey bu doon doon boo doon leeral Sénégalais yi ci xeetu jàngoro yi nga xam ni wax nga ko fi léegi ku wéradi xel wala koo xam ni wàllu kaarange wala yooyu ci wàllu ndomba yi yooyu tamit secret yooyu yooyu yan secret la. kaaraange yeeg loolu moom mënu ma la ko wax. Mhm. waaye duma ma génne it kii bi. Mhm. secret bu bu ngeen seetee yenn vidéo yi di ngeen gis bu ma ko lemee ba pare. Mhm. lem benn yi lii li tax ma génne ko du dara. ñi may seetaan seede nañ ma ni. kilifa accidenté na fi accident bu metti ba ñépp ni dee ndax oto bi ni mu mel jaadootul. mu génn ni Seydina Alioune waxoon na ni xoos sax du ma ko def. génne gi ma ko génne génnewu ma ko pour nit ñi di ci mooy yàlla wallu mag la tudd dama toog Gàmbi samay njabooti woy jur ñu rey ci ñaar ma jikki-jikki xale yi ñu leen di rey bitim réew rek wa ilaa diggante Brésil ak Argentine xale yi dañuy wut ay ensemble blouson ak ay dàll térénique di ki jaay pour suturlu ak luñ dimbalee seeni woy jur loolu dañ koy jàppee forot ca loolu dagan na jaayuñu yàmba jaayuñu dorog léegi nag lii bu fekkee yàlla dogal na mu nekk ci yow amul lenn kenn ku lay lijjanti du takk der du dara amul kenn ku lay lijjanti te it fa nga nekk da nga fa mucc ci wàllu fital ak jaaseeg paakaak lépp luy lore accident yàlla dana la ci muccal loolu moo waraloon ma génne ko bëri ki démb la ma benn kilifa wax Seydina Aline dimbali ma nga def ko cent mille francs ah kon prix bi eggul cent mille àgg na fa Mhm. maanaam dépassé woon na ko nit da mhm. daan indi lu ma téeméeri junni sax ma xool ko comportement am neexuma ma ne ko déedéet yow waroo ko am ah tamit da ngay segg ci ñi ko war a am dama ko daan segg waaw ah, kay baax de comme sama classe gi ndax gi moom bi yàggul dara dama mhm. daan wax xale yaa ngi nii ku koy jël da ngay indi nangam ak xar pour bëgg rek mu diis ci yow ba ci yàgg benn kilifa ni ma wàññi ko ndax sama njaboot yëpp dañ ci bëgg ma ne ko léegi nañuy def cent vingt mille barki démb la ma sama benn kilifa di sama sëriñ woo ma ni ma maa ngi yebal ñaar cent mille laa leen jox waaye ñaan naa la ci barke Cheikhul Khalifa ma ni kon ma def vidéo ci tàng-tàng bi ni may naa ñëpp kuy ñëw cent mille laa lay la koy defal te yaakaaruma ni danaa ko teggiwaat nag ndax dama bëgg li fi góor gi bàyyi ma yokk ko waaye bëgguma di ko wàññi bu dee fas gi 6500 la moom. waaw léegi li li tax kon gars di wax euh, ndomba euh, ci wàllu lislaam géeg yooyu takk geeg yooyu loolu loo ci leeral tam. maanaam euh, da dama lay wax ñaari baat. Mhm. ñi fi mbubbawoo ni ñoom ñooy dund sunna duñ takk duñu def dara. Mhm. loolu ñoom la concerné. xam nga doo ñëw ci sama daara ji naa man dund ma sunna. Mhm. damay jàngale alquran. lii kenn gënuma ma koo mokkal. gëwuma lu dul alquran mhm. man damay takk bu may génn rus na maa takk moyen dix kilos te gëwuma gisuma ku ma ëpp kurus mhm. waaye téewul da nga am ay xale danga leen di wan ni leen xale dafay gànnaayu mhm. ndax ñun noonu lislaam bi suñuy adversaire lañu mag ñi dañ daan takk der jamono yonent bi daaw ñu jël deru gileem bind ca seen i mu nekk seeni ka kii seen i zile loolu lan la woon boobu uude buy ëw daa amul woon moo nekkoon seen kaaraange. dañ ko daan def yonent bi jàppuñu ko. ok wéy yakaadu pour lan la. falexe ak naasi pour lan la <laughs> dafa am loo xam tappale la. ñi koy wax dañuy sangu wax naa ko benn kii ma ni ko sa kilifa day sangu fii. fii la sukk di ma xool ni ma nga ne ma ni ko sa kilifa day dugg fii di sangu duggal <laughs> ñaar rek moo am nga sangu takk suul. Mm-hmm. mbaa ñu sang la takk ba nga dëgër suul fii Sénégal la. da ngay mën nekk ci li nga nekk di ko gérer. nit ñi nekk ci yow di la perturber. kenn mënu ci dara da ngay takk sa jabar indi ko ci biir kër gi sa yaay def ko wujj pourquoi ni ni ni ko jox dee ko jox dépense bi. yow sa papa di ko jox dépense di la jox dépense di ko jox dépense di ko jox ba nga màgg takk jabar xanaa kon ki nga takk du yaay jàmbur waroo ko jox dépense sa yaay walbati ko di ko xeex pour mu génn kër gi say rakk dem tas seen say ñëw ci biir kër gi di xoñ jam sa jabar pour ñu génn kër gi pour lan la doo dee ma sànq sa jabar lu ko utal lu ko mucc maanaam réew mi looloo fi do <laughs> tey jii tele bii ngeen yor mhm. bu rawoon TFM léegi léegi nii wala mu raw seen TV ñu koy coow mhm. tele yi mag yi ci dëkk bi ñuy coow seen tele bi bëgg naa loolu de ñu koy coow sax kay ngeen yaakaar ni seen employé duñ jikki-jikki di fakastaloo ko damma ko dee loolo am na ci tele yi di ñaari fan ñett nga gis journaliste tëdd feebar ñu sànni la loo xamante ni si nii da ngay pousse pour keneen gën a siiw loolu dafa am boo dee léegi kon baax na ñëw naa fi ñuy fagaroo sëñ Aline waaw kay sëñ Aline Diouf man sëñ Aliou Diouf sëñ Paate euh, sëñ Aliou mu sëñ Babacar Si mu sëñ Paate macha allah fi mu nii moom euh, lépp lu umpoon gars yi dana leer nañ ñi tey fii ndax nee naa la euh, kenn rek la moom rek la fii lay amee ci kanam tuuti numéro téléphone yi di ngeen ko am ah sëñ Aliou mhm. ba léegi damay des ci yow de xam nga gars yi moom mbokk internet yi leerlu gi da ciy am solo te oh. euh, occasion bi nga xam ne am nañ ko ci yow man moom xam naa kan mooy señalin man moom xam naa ko bu baax a baax a baax kon gars yi yéen a jot ngeen xam ko bu baax ci wàllu baatin ak xam-xam bu sell moom rek mooy borom Signaline euh, ma ñëwaat ci beneen côté bi muy Signaline ci biir sëriñ si dafa am feneen fu muy nekkaat gannaaw bi mu jógee ci Signaline comme ni nga ko waxee léegi dem tar bi yu ñëwaat dafa am ci ñoo xam ne dañuy ñëw fii ci yow dangay nga yor ñeneen ñoo xam dañoo nekk ci internet bi wala meenum yow kese yaa waaw man nag dama am kilifa. Mhm. sama kilifa mu ngi dund. Mhm. xajuma ci ginnaaw kenn bu ma ko noppee gis du ma am kilifa. Mhm. man sama kilifa bi ma koy gëm fekk naa ñu may rang man. may wax yàlla di ko def barke Cheikhuna Ahmada Tidiane hmm? bi may am kilifa man. sama baay bi mu génnee àdduna laataa may am kilifa. lu ma ñaan yàlla yàlla defal ma ko. ñeewuma kenn ku yàlla bind awma kenn ku ma ñee li ma séq ak sëriñ si presque ndax man awma xarit nga baal ma du ma seeti amul benn sëriñ bu ma musa du ma ni nag du ma am xarit dama amagul confiance sëriñ Babacar daf ni gor du xam fakk du tiit ba fenn du ñàkk sàcc du soppeeku du jàpp bàyyi gor du dal dalli bi ma nekkee ci daara ji kenn topp ma ah néeg ba nga am baati ñu doo rato bu ma nekkee fii ci daara ji ku ñëw dañuy ànd rek di sagalante. Mhm. waaye li may bañ ànd ak nit tey bu subaa ma nga ñu bàyyante. moo mhm. tax aw ma kenn ku ma fasanteel kóllëre ci mhm. réew mi. du ci nguur du ci sëriñ du benn sëriñ. du ma dem nekk du ma ziyaar ji kenn. benn ziyaar la am bu may def. Tiwaawan laa koy defee. sama rawdu papa rawdu Cheikhul Xaaji Malick. raw rawdu Serigne Babacar Sy ma partagé ko ñi ci des mhm. romb buntu kër xalifa bi lima ma li ma warloo ak moom mhm. ngir ñaan yàlla jëmmam ji yàlla rus ci ay magam rus ci ay wayjuram rus ci Cheikhuna Ahmada Tidiane ma jàng samay fatiha ak salaatu fatiha yéene ko waaye du ma seeti kenn man dew ma ci kenn mhm. Serigne Paate mooy sama Serigne te bu ëllëgee bu yàlla tànnaloo waat nit ñi Serigne man moom lay tànn ndax avant ma koy xam mënuma may sama yaay cinquante bi ma ko xamee lu ma neex laay def damay xëy maye cinq cent mille te grâce à moom moo tax ndax it dafa jël dëgg rek teg sama loxo sëriñ ma jëloon dëgg teg ci loxo mu jël dëgg teg sama loxo jàll mais kantaa nag comme xale yi nekk ci internet bi yenn saa nga am say njaboot ñu génn nekk ci internet bi wax li ñu am nit ñi gis leen kontaan ci ñoom tefal defal leen teraanga loolu wàññiwu dara waaw mm-hmm. ah, wàññiwu dara kon daal euh, sëñ Aline euh, loolu mooy loolu moom leer na nañ ñi ni euh, ni nga ko waxee noonu la waaye amul ay sëriñ soo xam ne léeg ñu ñëw ci yow di ñaan di jël si secret. est que ah, loolu loolu ñëpp la loolu ñëpp la loolu loolu mënul ñàkk. Mhm. Ah, déggoo man la maay sama xalifa baay. Mhm. sama baay amoon na ay wëllëre mhm. nit ñëw ni ma ah sa papa ndax yoroon na dara ma ni ko loolu nu may def ma ni ko da ngay <laughs> mooy lan. man du ma comme ñaan nii nii nii fi nii. xanaa ma nekk ci tànt man boo yëkkatiwul sa xaalis teg sama loxo du ma la ñaanal duma ñaan ci ngir yàlla xalaatuma ko defuma ko jàngale rek laa man ci loolu waaye comme maag yow ñoo bokk Serigne kar ni yow kay dama boo amee soxla sa yitte moo koy may boo amul yitte du ma defal dara du ma la lijjanti sax mm-hmm. ndax réew mi dafa bari tappale mm-hmm. te fii tappale newu fi da ngay man def mënoo ko wow ma kenn mm-hmm. loolu kenn loolu kenn duy du dara tey jii mën nga yëkkati lu mat cent seize mille quatre cent quatre vingt sept suuratu waaqia jox ko nit téye sa turam ak turu yaayam seet ismilal azam bi méngool ci wàllu teraanga méngoog moom ci wàllu kaaraange nga def ko defin wu sell yàlla ubbi ko defal ko teraanga léegi xam lan lay def day toog naa la laay ba nga fa demee jinneem ci xam nga fi gis leen benn jinne moo tax laaju mën a jinne sax gis leen ko fi bu fi nekkoon fii lay toog jël tax bi jën yeeg affaire yeeg maa wax la ñaari baat. Mhm. mooy réew mi ñi fi xam jinne matuñu cinq personnes. Hmm. matuñu ko. gars yi maanaam jinne ki jinne bi gën a rafet bi la ñoo fi bi gën a rafet ma wax la ko tey rek. jinne bi gën a rafet. Mhm. ci jinne yi nu muy doxe mhm. làmmeñam lay tàllal ba mu gudd. mu di ci bërëngu ku ñemee na dem ay tappale lañu laa la wax. <laughs> ma wax ko rek ngir xale yi bànneexu ci. mooy ngetu neew la jinne la jinne yor. ngetu neew waaw. moom la mm-hmm. jinne ngetu neew maanaam boo xetu neew mm-hmm. ñoom lañu ame amee te dafa bëri ay giir ni naan lawbee soosee joolaa séeréer te ñoom ñëpp kenn xeet bu ci nekk ak sa kilifa bopp mm-hmm. amul nit ku yilif jinne di nga ak ñoom nag danañu wëllërante ak yow ngir sa cofeel ca maam ña ba nii comme tey suñu kilifa yi fi nekk seeni way jur amoon nañ ay njabooti jinne mhm. silsila boobu daf koy topp ñu te it ci kaw nga am yitte boo ñàkkee yitte jinne ko am yitte la daf lay bàyyi waaye comme li xaw ni maa yilif jinne yi maa yow yilifoo waa kër gi di yilif jinne surtout Ndakaaru sax nit ku ni la damaa yilif jinne ne ko seen naa li nee na waxoo dëgg waxul dëgg mhm. na ñëw yilif ma wala mu yilif kenn rek ci daara ji mhm. li gën a gaaw mooy dinaa la xamal leen mooy xam jinne gàcce la xam jinne gàcce la wax naa ko benn paa mu ni waaw gis nga Chamharous ma ni ko yow moom xamoo jinne te jinne la doon jéem yow xamoo jinne premièrement mooy Chamharous du jinne. Chamharous lan la. la. Sénégal ban président moo ko yoroon. Ablaye Macky fi njëkk. Senghor Senghor anam. dem nu mu tuddoon Senghor. Mhm. lu tax ñu naan ko président. siège bi bi mu toogoon. te mhm. Palais. bi mu fi jógee Abdou Diouf a ñëw. Mhm. Abdou Diouf la tudd tudd woon président imam bi ko tudd tuddul woon président Abdou Diouf Abdou Diouf rek la mhm. léegi ñu koy wax président yitteem moo ko may mu dem toog ci siège bi mu jógee fi Abdoulaye Wade ñëw. Abdoulaye Wade ñu koy wax président yitteem moo ko may. Mhm. mu dem toog ci ba mu jugee fi Macky Sall toog ci siège bi. luñ koy wax bu génnee eh président ngi ne. waaye léegi tey bu ma toogoon fii ñu ni ma président président la. daf ma wax ne ma Serigne Cheikh moo ni sama ruus gaañu na ma ma ni ko xaaral ma leeral jamono bi Serigne Cheikh tooge dañ ko bind not ni ko président génn na àdduna boobu ka fa toogoon di Chamharouj moo génn àdduna waaye sées ba ko ca toog rek yaay Chamharouj mm-hmm. waaye ñu bari da kay moom da ngay gis tur yu nuy wax sax ay ree jàpp la gàcce la jinne di tudd tur yooyu mm-hmm. loolu gàcce la ci jinne mm-hmm. te xam jinne yéeféer sax a gën xam jinney jullit ndax jinney jullit lu mu rus a def yow la koy def la moo tax da ngay gis sëriñ su bari dañuy doyee di ndax dañuy jël benn tur def ko fekk ka ko doon def tur woowu dagg nañ ko ndax doyee dee taxoon ñu dagg ko. est jàpp mu jàpp moo tax ndaw dafay am kilifa. jërëjëf loolu laa bëggoon a leerlu. Euh, leer na nañ ñi euh, signalin mhm. euh, keroog fa jamono yi passé gis nañ koo xam ni yéen a bokk yoon wi tamit mu génn ci internet bi am koo xam ni da ci doon wax ay kàddu jumale ko ci moom nga ni ko kooku dafa am kilifa loolu yoon wi la wala Adamo waaw wala dafa am relation bu ngeen seq. déedéet sequñ dara. Mhm. xamante wu mhm. euh, man sax dumay dugg ci yenn détails yi. Mhm. waaye man bëgguma ñuy minimiser nit. muy moom muy ñi muy waneeg ñëpp ci yam dafa am loo xam ne wëñ ñi sutura nit. yàlla bëgg ko. gis nga dafa am benn kilifa gu mag fan yi paase. ñuy wax ci moom safaan. loolu it mag ñi dañ ko war a tere. da ngay gis ku toog nekk ci télé ñépp naw la ndekete am na ñu nekki suuf uniquement rek pour yàq la euh, ngeen baal ma alma téléphone bi beneen bi defe naa bii la sax kii lu mu bind ça ma bindal ko saba mhm. mu yónnee ma lii mhm. ma ne ko danga jaawale xanaa mhm. mu bind man la diw Dakar dëkk pikin ñëw fi man rek maa fi ne xale yi ma ko liiral ba ma mokkal ko <laughs> ma envoyé ko vocal bi vocal bi moom xam naa bu ma ko tegoon senegal dana danañ mu daal di bind ay yow rus naa bal ma ak ma envoyé waat ko beneen message gis nga ñi lay piéger mënoo fexe ba duñ la piéger c'est parce que yonent bi nga fi nekkal ñaata yoon lañ ko piéger ba wax ko ni ko Aïssa sax dafa njaalo wax dafa gën a ñaawloo yow nga bëgg nekkal yonent bi da nga Sénégal dañu am lu ñu fàtte mhm. mooy dañu jàpp ni Iblis faatu na te Iblis faatoogul mos ngeen a dégg ñu tàggee Iblis iblis lu mu yàlla fi mu moo ëpp doole lépp sa yoon wii nga rëdd ni fii la ñëpp yi jaar falaay laay laay toog fa ku ma seq ku fi ñëw ma dégagé la man ak ñoom ba sawara loo ci góobe ma gar ko ci pourtant cas bi mënoon naa jeex kaa communautaire la woon yàlla teg ci bëtam mu xam ni iblis mii mu faat mënoon na koo faat benn yoon mu jeex cas bi jeex léegi léegi nag léegi iblis comme kaa communautaire la mu muy wër di wàlla rek di noggutuwaate rek mais bu ko yàlla faatoon coow li jeex mais Iblis mu ngi dund ca noonu yonent bi la woon fii benn bis benn maire daf ma fekk ni ma dinga gis lu raw taatu tubaab ndax dañ fee ñëw doon xale bëgg diine ma ne ko loolu dérangé wu ma taal nañ sama jàkkay maam taal sama jàkkay ba sama sama daaray maam kon bu nu taalee sama daara dérangé wu ma ndax li alaaji ma alaaji Malik julli na ba pare ñu ni kum jiite amuloo julli waa léegi man ma ni njabootu alaaj Malick la di dégg lu neex mag ñi lu ñu wax fi ñu jaar ko fa jaar taq ban mus ngaa gis ci paa yi kenn ku fi jaar kuy xuus ci ban amul benn paa bu xuus ci ban maanaam jëf ju ñaaw jën leen daan wax mhm. boo leen toppee da nga ci mus mhm. moo tax ñu nekk ci tele yi di waxtaane diine faw ñuy dund lu metti mhm. waaye dafa fekk ni ku naa la sa taat wu rëy wi da nekk ci kanamam rek <laughs> loolu <laughs> en tout cas sëriñ Aline mu sëriñ Babacar Sy mu sëriñ Paate moom itam mag moom euh, ci kaddu gi ba léegi euh, yaakaar naa li ngeen doon bëgg ci moom euh, am ngeen ko waaye tam man bi nga xam ni maa sol sama daal ñëw ànd ak Bakel 24 ci leeral ak laaye biir mbokk yi rek moo moo ñu taxoon a jóg te yaakaar naa sëriñ Aline ba léegi mu ngi ci sëriñ alin nag ban secret ngay waxaat àdduna maam pour ñu tënkuwaat ci pour yombal l'islam yombal diine ji ni nga xam noonu la ko noonu la ko sariya dundee noonu la ko diglee ñu war koo topp lan nga ci war a indiwaat. soññaat ñu ci maanaam lu may soññ waa senegal mhm. xanaa ñu jéem a wuti kilifa. respecté suñuy baay ak yaay. Mhm. réew mu la gën a respecté ay kilifaam moo la ëpp avenir. man de li nga fi wax fii léegi moom présenté say kilifa fi nga jaar fe ak ñi nga toog ñëpp sëriñ si bari doo ca dund. émission bii nii ñuy def bu sama yaay woote woon da ngeen koy dagg. Mhm. bu nee du àgg du àgg waxuma waxi du àgg sax da ngeen di génn abal ma wa ilaa muy wax day damay day wax ba pare e, yéenay xaar mu wax ba duma du ma yàkkamti ci li muy wax dara ba li mu wax daaneel ba pare ndax mooy bañ mhm. ndax ndaw dafay am kilifa ba mhm. pare nag kun jurul ñaari yoon doo yéeg da ngay am baay sa baay jur la di sa yu geño mhm. nga am baay muy sa baayu ruux ñi la yàlla booleel tey jii daara ji mhm. am na ñu fi def mbaax ngeen baal ma donte la bariwul nag mhm. man duma gërëm ñu bari bariwul mhm. lu ma waaye defal ma wax ko dafa am bis benn waaye ne ma dama gis ngay ngay ngay gërëm benn euh, politicien bu nekk fii bu ma mënee wax turam Seck Ndour la tudd ma ni ko waaw may na ma kër moo tax ma gërëm ko Serigne Babacar moo ni ku la defal teraanga na ko wax waaye fekk na fi ay kër yu ma jëndal sama bopp ndax da gërëm naa sama bopp maa moom <laughs> waaye man ku ma may puno vélo ma wax ko mhm. daara ji kenn rek a fi indi teraanga kenn rek mhm. bu weesoo sëriñ bi mhm. mennum Ayda Diallo moo fi indi mu Seex Béthio soxna Ayda bu Serigne Seex Béthio moo fi indi bu bu tey jii ajjuma bu leen fi fekkoon da ngeen di yaakaar ni adduna bi yépp lay toggal indi ko fi moo koy def te noonu la koy defee ci daara yi ma xam yëpp jamonoy corona bi lim fi indi dund ci ba corona bi jeex ca jeexul te daara yi la koy defal mooy yaayi daara ji loolu mbaax la yokkul nag waañ keneen keneen bokkaatu keneen dafay noonu nga koy waaye li may dénk waa Sénégal <laughs> mooy nañu nañu nañu kenn ku ci nekk na gëm li nga gëm Mm-hmm. bu dëgg rek neexee yàlla mm-hmm. mooy maam Cheikhul Xaaji Malick mm-hmm. ku amoon i pexe la ku bëri woon xam-xam la bi muy génn àdduna fi la bàyyi murit maam Serigne Touba ku woon pexe la ku bëri woon xam la ca am yitte bi muy génn àdduna fi la bàyyi tiijaan waa léegi tiijaan bi ak murit bi bu ñuy dagg sante ndax day wàññi ci tiijaan dara wala mu yokk ci murit dara kenn ku ci nekk na gëm li nga gëm ca may ñi ci des jàmm ñun julli di rek ñooy diingatanteeg ak telli telli mhm. sëriñ bu nekk jàpp ne sa sëriñ a man déedéet kenn mënu fi ku ci nekk sa yittey bopp rek lay rawale fa nga jëm ndax wàllu yàlla yitte rek la amul leneen amul sant mhm. wàllu yàlla yàlla nu mu sant waaw léegi lu tax ñu bëgg a jël diina ji sa utale ko sant man damay am sëriñ mu sant Juuf mhm. nit ni waaw kee moom sëriñam Juuf la sant yow sa sëriñ nu sant si la sant walla Mbàkke xanaa du sant sëriñ ki sëriñ si sëriñ bi gën a man ci sëriñ si kan la ci réew mi waa léegi bu ma nee Cheikh moo fi man nu mu sant. ñu ni daa warut sant taal. Ah, xanaa ko gis nga boo santee jaxumpa. Mhm. wala nga sant jaasi. Mhm. ab bëj am na sant wu tudd ab bëj. yooyu yëpp boo ko santee ca am yitte ci wàllu yàlla. Mhm. doon xutbu zaman. wàllu yàlla yitte rek la sant amul sant. kon li ngay def rafetal ko rek sa diggante ak nit te nga nangu jee bootu ji ku dul bootu duñ bootu ci yow. Mhm. léegi waxal ci gars yi secret yi lépp loo xam ni euh, sëriñ bi euh, mooy li nga waxoon léegi rek lépp loo xam ni neexul suñu borom rek nga fi bañ nga nga nga suñ nga tële loo xam da nga ca joxoo ko sax yitte waaye lépp lu yittee jaam ñi euh, te suñ boroom kii ko rek yaa ngi ci loolu tamit. soññee loolu moom loolu moom loolu moom. bépp képp bépp kaaraange. Mhm. kaaraange dafa bëri ay façon ci mhm. wax nag fasaaxa. ubbeeku dafa bëri ay façon bayre dafa bëri ay façon mhm. wax naa ko benn kilifa ma ne ko dama gis nga ni da def da nga def bayre nangam ma ne ko déedéet du noonu mason bi mhm. boo ko defaralee bayre kiy jaay beñe mhm. kañ lay jot ci bayreem <laughs> soudeur bi nga defaral ko bayre kiy dawal sareet <laughs> kañ lay jot ci wërsëgam kañ lay jot ci wërsëgam kane bitim réew nga defaral ko bayre ki ne ci réew mi <laughs> kañ lay jot gis nga ki ne bitim réew dafa am ñaanu boppam ndax ruuxaanu fii ak ruuxaanu fee bokkuñu da nga ni man kat ay këyit laa bëgg ñu ne la sarax bii ngay joxe hmm. waaye nangam ngay fay ñu defal la cangaay bii tey mën nga defar loo mën nañ defar boo loo xam ginaar nga koy boole lekk hmm. amul looy lijjanti ci kaw suuf muy ta tey jii lii lan moo tax ma defar ko mooy dama gis bis am ku ni ma suñ école de xale yaa ngay daanu rek ndax jinne Maymuna du jinne Maymuna hmm. dafa am ay chef de bande yoo xamante si ni këti jantaabal hmm. la ñuy weer ba mu wow hmm. ñu dëbb ko sotti ko fenn xale bu ko noyyi da ngay piqué crise man Maymuna fu Maymuna dëkk <laughs> kon kaay fi xewoon yëpp loolu loolu ay tappale la loolu du dëgg jinne a dina ñëw ci école yi di di di dof dof la kon booy rey ko de <laughs> lo jinne waaye dee na noonu. jinne dafa am heure bu muy dox. Mhm. jinne dafa am heure du nag damaa xam de. Mhm. sama kilifa nag xam ne jinne. Mhm. damay toog di ko déglu. waaye jinne dafa am heure bu muy dox. xamadi wu ma ko sax ndax sama baay mag la. waaye dama bëgg a wax rek ni lépp nit di def tey jii nii lépp lu maanaam mboolem tey jii bu xale yi doon wax na Seydina Alioune du nit Seydina Alioune du nit. waaye bu ma dul nit lan la. njaay nga moom ñaar rek moo mhm. nit ak jinne mhm. ñoom la yàlla tudd cité leen malaaka yi ñoom ñoo nga ca kaw mhm. ñoo nga ca sunu borom nekk ca lañ nekk léegi rab yi ak nit ñi ku gën ah. lu dul nit nit a la gën bu nee la doo nit bu dee malaayika nag dan laa bëgg a wax malaaka wala jinne yow yaa ngi dellu ginnaaw de yaa ngi yaa ngi toroxal sa bopp de wala da dof nga bëgg doon maanaam dafa am loo xamante ni si nii dafa seex loo wax ay dinaa def lii bu ma defee lii ñu def nii loolu nit ñi soxlawun loolu man kat dama bëgg kaaraange sama njaboot nga ne ah jëlal fas gi takkal ko bu la neexee nga ëwal ko mag ak goneeg lépp sama doom kat xel mi neexul nag nga yëkkati kiis ne ah, yëkkatil kiis gi kat ñetti kiis lay doon bis bu ne mu naan benn ba muy ñetti fan am na ci kiis boo xamante si ni bopp xaru tabaski lañ koy booleel am boo xamante si ni bopp xar rek lañ koy booleel mhm. tey jii nga ne man kat dama bëggoon sangu am na ba comme tey par exemple man laa biir kat vingt deux jours la bii quatorze jours la bii ma ni bii tey jii am na ñoo xamante si ni bii dafa am ñetti qualité dafa am 66 66 bi am na ñetti façon mhm. bii yi muy andal amna ci buy and ak ñetti kamel xalé yi jang ko bis bu nek ba muy ñetti fan amna ci buy and ak juróom benn kamel xalé yi jang ko ba mat juróom benn fan amna ci buy and ak fukki kamel ak ñaar lolu xajul ci nit motax nit dang koy defal li mu di ko sangoo 66 jours fum tok na la la <laughs> jinde jindee yow yow man joxuma ak kayit la jox de waaw lim yi ci nek nga war ko sango rek la la engager ak sungu fi ak parfum mhm. waye fi gisoo fi jinne loolu ay tappale la te it ñu bàyyi sulli mbooti démb mhm. Sénégal dara taxu koo dellu ginnaaw mooy diw moo waxoon nangam diw moo waxoon nangam diw bi mu waxee nangam ñam ko waxoon anañu ñoo moom ñëpp dem nañ ñun ñi fi des waxante wuñu loolu mhm. bërki démb benn waay woona ma ni ko ñan yóbbu ngir équipe bi mhm. nañu leen ñaanal ñu nekk ca lañ nekk buñ leen naanalee ñu am ndam est-ce que dinañ ni Seydina Aline mooy ñaanal équipe nationale déedéet est-ce que dina ni Moulay mooy ñaanal équipe nationale dañ naan Sénégal jël na coupe ba ah, pourtant buñ ma ko rangoon mu baax bu <laughs> buñ ñëwoon andi ko fii ni ma yaa jël mhm. ma mën a tiitar te ba te ba waxoon ni dañ koy jël te jël ñu ko ñëpp wala su ko ñëwut salaw boo ne maanaam yooyu moom loolu moom euh, wal iyaazu billah yàlla nañ ci yàlla musal gis nga tey bu ma bu ma bu ma gisoon ni lii dana am mhm. wan gima ko yàlla won rek mhm. ci lay bég ba damay woor sante ko yàlla waaye du ko wax mukk ah gars yi benn yoon laa mos a waxee def leen nangam. Mhm. te dama ni woon nañu wut ngeer ngoloñ bisaab bu xong ak mbante mbaare. Mhm. te ëpp na ay junni junni nit ñu ko jëfandikoo woo ma ni ma wér nañu te boobu jamonoy feebar la. Mhm. bu weesoo loolu ma ni am na saraxkat boo xamante ni si sama kilifa moo ko joxoon. ca jamono bi neexul. man ngeen ko def boobu gerte kemb la woon mhm. da ngay tëju sa biir néeg lal benn dara mhm. ut gerte lu mat liibar wala kilo wax ci sa soxla sotti kooko fekk summeeku nga ba set wicc mhm. boo paree teg ci 600 francs koo ko sarax baax na dara bi nag doo ko sarax loolu chaque année lay doon déedéet heure boo ko jekkoo beneen bi ki des man leen ndox ku koy saraxe na ko yéene yaayam ndax day mel ni teng si nga jël ko rek dóor ko ci miir bi te booy saraxe ndox di ko yéene sa yaay force da am teraanga saraxe ndox bi mooy maanaam maanaam comme nga jënd ñetti sasa rek ni lii maa ngi koy yéene sama yaay mhm. loolu mhm. lu am solo la loolu rek laa kii waaye kantaan yeneen ñi ki des mhm. loo fi bëgg sa yittee la koy may lu la fi sa yitte maywul du ma la ko jox jërëjëf kookoy Serigne Aline mu sëriñ Babacar Sy mu sëriñ Pathé Diouf macha ci xam-xam bu sell bi lépp teg ko nag euh, ci ak dal waaye teg ko tam ci li nga xam ni moo di xam-xam bu sell ak euh, tarbiyu ci kilifaam tarbiyu tam ci sëriñ sam su tedd si euh, loolu rek lañ fi indi woon tey Bakel 24 kon xam naa ni euh, numéro téléphone bi da ngeen ko am ni ngeen ko gisee ci baar bi rek bu ko defee yéen ñi nga xam ni bëgg ngeen ko am en direct rek man ngeen a jaar ci 77 302 61 53 Serigne Aline Diouf la moom rek la fii nga xam ni lañ toogaloon tey waxtaan wu sell wi bu ngeen ko woowee da ngeen gis Euh, jàngoro waaye nag euh, yitte yi nañ ko ko jox euh, jafe-jafe yi metti na tolluwaay bi waaye itam sëñ Aline ku jokkoo ak moom ci taalibe gi ku jokkoo ak moom ci xam-xam bi yaakaar naa lépp loo doon wut dina yomb sëñ Aline ñu bàyyi nga ñaanalaat téléspectateur yi doon seetaan nga mën a tàggatoo. waaw ñaan gi moom kenn ku nekk mën ngaa ñaanal boppam. Mm-hmm. fexeel ba sa wërsëg say jur di ci lekk mm-hmm. ba say woy mm-hmm. say wërsëg. say rakk say mag ak say mbokk say soxna di ci lekk. waaye li fekk yaa ngi am teraanga di ko lekke ci àll ba di bàyyi sa njaboot moom jëru kenn du la ñaan boo amee un million yaag sa jabar ngeen lekk ko balaa jeex nga deux millions mooy ñëw li fekk yaa am teraanga di ëpp looy may sa yaay di ko may di bari looy may sa yaay xaalis da am teraanga ku la ñaanal li day nangu waaye boo fi ñëwee jox ma un million sa yaay soxla cinq mille francs joxuloo ko lu ma la ñaanal de amul njëriñ ñaanu senegal moom yomb na mhm. mooy fagarlu ji fagarlu góor-góorlu mhm. waaye bu yàlla dikkee bul fàtte say mbokk mhm. ku fàtte say mbokk fal mbokki jàmbur moo tax mënuma am xarit mhm. da ngay gis ku la woo la waaw man kay damaa bëgg ñu fasante kóllëre ma ne ah sa allahu day nañ rek ci waxtaan nii waaye kóllëre moom mënuma ko ndax yàllaa ni boo koy dog ma lay dog man bu ma yàlla dogee fu ma jëm yow koy fexeel ba bu du ma ni du mag kóllërante kenn ndax yenn saa yàlla sarax la ñoo xamante ni si nii boo juumee ñu ni la da nga juum te man loolu laa bëgg néew na tey jii ma juum ñu ni ma da juum xanaa man du ma ma wax safaan ñu ni kii kat wax safaan la bul ko waxati mu jaral leen ñu ñëw xeex ak man ca teewul dañuy àndaat ak man mhm. loolu moo yombul mhm. waaw du ma ni aw ma xarit nag am naa xarit mhm. am naa doomu ndey waaye ñaarul de benn la naa benn rek la <laughs> xarit rek am <laughs> te maa ngi moomee ànd di tag yonent Euh, ca mu ngoog jërëjëf mbokk téléspectateurs yi lii la leen indiloon ci jataay bi ci waxtaanu sell wi man mm. euh, geen ko topp rek euh, di ko siifur boobaak léegi Bakel 24 nuñ ko mën defee fu ñu mën di jaar rek yaakaar naa ni sëriñ Aline mii sëriñ mii mu sëriñ Babacar mu sëriñ Paté Diouf kenn rek la fii nga xam ne lañ ko fekk ci daara ji jàngale alquran be bokk ci cëram waaye tam tagg yonent bi alayhi salaatu salaam bokk ci cëram yor daaray internat di leen toggal ji xewlu ak dalluwaay lépp amul kenn ku ciy fay koku euh, ci mom rek euh, euh, la ko gissagun fi la nek nak bo ñe ba jam ñaaju rek yaakar na ni nga jël li nga xamni mom modi di ci tata yi wala ci kalando yi nga ñew fi nga xamni moy buxu moy buxu nga fekk fi Sénégalin ci tagg yonent bi nag da ci tag lu bari xam nga waxtu wee tax rek waye kon may ko mu yëkkati ben er waye gis nga ko yonent bi rek sha allah ci la nek kon di len jox dig inshallah benen jotaay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh